ñu nuyuwaat mbokk yi rek di leen xamal ni comme ni nga ko waxee euh, at mu bees moom euh, su ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko daan euh, séentoo daan ko diggal tamit mbooleem saxaaba yi ñu di ko ko séentoo mooy su tero nanu ci xisaab seen bopp daan wax ni xaasibu anfusakum qabla an yuxaasabu qabla na ngeen xisaab seen bopp laata ñu leen di xisaab te alquranu karim daf ñuy nettali ni آه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دونك نيت كي يالله سبحانه وتعالى ألك دفكوي دفكوي داف كوي داف كوي لونكال تيريم تي تي دوخم دار كوي генيل نك نيكو اتا حسابال سا بوب تيري بوبو نك سو فكنتني نفرون غوكو تي ادينا مومان تي خام ليغا خامتون سي موم موي تي لي نتي وارا كورجي ak li nga ci war li nga ci war a defaraat su boobaa boo demee fële euh, booy xisaab sa bopp euh, yaakaar naa di nga mën a may sa bopp lu lu lu baax mu ngi mel ni euh, élève boo xamante ne si dafay nekk ci examen rek suñ ko laajee question bu ko bu bindee ba pare laata muy jébbalee copie mu toogaat ko jàngaat ko xool ko bu baax a baax amaana mu xalaat gis ci ak njuumte goo xam ne defoon na ko mu ñëwaat ko rectifié waat ko euh, su demee suñ koy suñ koy corrigé jàngalekat yu mel ni seen jili ña nga xam nañ lu mel noonu danañ yokk ay ay ay ay point waaye nag su fekkente ni révisé waatul woon li mu bind euh, xoolaatu ko ba xisaabu ko bu demee bu ci gisee ak njuumte ay point day gën a gën a wàññeeku euh, kon loolu moom mooy moom mooy moom mooy xeetu xisaab muhasabatu nafs yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan euh, digal saxaaba yi ñu di ko def euh, laata euh, ñuy xisaab si ñu leen di xisaab at nag moom saabu ñëwee comme ni ko commerçant yi di defee ñëpp rek commerçant bi day def saa at mit jeexee mu toog le boppam def évaluation xool budget bi xool li nga xamante ne si moom mooy lim ci gagné xool li nga xamante ne si moom la perte xool tamit li nga xam ne moom mooy capitalam capital doomu aadama nag moom mooy dund gi nga xam ne moom lay dund li nga xam ne moom mooy gagné mooy jëf yu baax yi nga xam ne doon na ko def la muy perte nag moom mooy li nga xamante ne si mooy jëfi sofaan yi nga xam ne def na ko euh, kon euh, bis bi nag euh, ni nga ko waxee muy bis bi njëkk ci at mi su teroo Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul am na loo xam ne bindoon na ko ci <coughs> ni te boo xoolee mbind mi yëpp ginnaaw bu ko jàngee di ko tënk nga gis ni Sëriñ Tuubaa li li tax mu def ko nekkul lu dul wanewaat ak ak ak doon ak jaamam Eh, delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala xamni yalla rek mom moy ki nga xamni mom mo jere jëre te yalla moy ki nga xamni mo fi sax te moo fi jitu eh, kep ko xamante si am nga aajo ci mom rek nga mëna dem eh, diko ko xamal tamit batay tey nen ko am at wo xamni at mu bes la mi ngi ni dëgmal te at mi nga xamni ne na amna ci ay dogal yo xamante si borom bi subhanahu wa taala dëxañ na ko ci at moomu te te lépp lo xam lu ci lorang la mom rek moko ci mëna dindi kon nak yow yalla at mi nga xamante si mi ngi dëgmal Euh, lépp loo xamante ne si euh, dogal nga ko ci muy ay ay ay musiba ak i balaa yàlla nag ma ko euh, fegal musal ma tamit ci seytaane mi nga xamante ne si bàyyiwul kenn te la nga xam ne moom la waxoon yàlla subhanahu wa taala ni la la ughwiyannahum ajmain nag ma ci muccal muccal ci tamit mbooleem sama sama xeet muccal ma ci tamit ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy soldaar yi seytaane ci lool tamit mi ngi wax ni maa ngi ñu làqu ci yow ngir euh, ci sa bakkan bi nga xamante ne dafay digle lu lu bon nga nga fegal ma ko ak lépp loo xamante ne si daf may fexe ma jige la yàlla na ma borom bi subhanahu wa taala may ci at mi loolu moo nekkoon tënku ñaan gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa def na ko ñaan gi nag moo nekk nii Sëriñ Tuubaa dafa wax ni yallaahu antal murtajal muawwalu alayhi antal abadiyul awwalu inni ala fadlika zu taawili wujudika al amimi kun wakili haza wada amun jadidun yaqa فيه قضاء ما له من يدفع عام جديد شأنه قد أقبل بكل ما فيه قدرت مجمله فهب لي العصمة فيه يا وكيل من كل شيطان لإغواء يصول ونجني وزمري منه ومن جنوده طرا ومن لهم ركن بالمصطفى أقبل ضمن ذا النظام يا صاحب الجلال والإكرام وقد إليك نفسي الأمارة بالسوء بالجذب إلى البشارة واصرف شواغلي لمن يقرب إليك زلفى فيه فهو المطلب وصليا على النبي المجتبى وآله مع صحابي الأدباء كون آه، لول موي ليغا خامتانسي موي نيان غي سيرن توبا خادم رسول بيند تا مو نيك سي ادعيه سنه كون نيغي ندوكلات آه، امه الاسلاميه غي ييب فهنيئا لكم بالعام الجديد آه، فهنيئا لكم بالعام الجديد 1436 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى